on est chef on ne le devient pas waaw moom la tubaab yi wax nit nekk ga mu nekk kilifa ba mu juddoo la ba mu juddoo la waaye du ko dab loolu waxit la dama gis bërki démb ñaari affaire mu jaaxal ma benn bi ñu wane ñaari première dame yi mana soxna bu Jomaay ak soxna bu Macky Sall ñu def ko ñaari foto ñaari vidéo pour nga xam ku ci ne kan la ñoom ñoo xam ban jugement lañ ci def mais bi ma intéressé mooy bi ñuy wax ci sox soxna bu jomaay ñu wane fi mu tàj furno defar beñe di jaay loolu am na leneen lu muy def ci nit ki moo nit ko xool mbiram rekk boo seetee fa mu jógeek fa mu yegg ngaa mën a comprendre lu tax mu doon li mu doon bu ko defee kon nag li may ñaan rekk mooy ñun coow yu bare yi bu ñu ci meelewu nañu seet lii sunu farate rekk bu jotee ñu waxtaane ko lu ñuy def ñu def ko nii rek la tollu bu ko defee bëccëg bi dem na te am na ñu bëgg a dellu ci ngoon gi te boo sañoon du ñu guddee ndax léegi télé bi dafa bari yu fi xew xëy na nag moom ku nekk ak nam ko firee waaye yaakaar naa ni góor gu tedd gi ba mu ko waxee yàgg na te mooy wane ni afaarit yi yi nekkoon ci pays de la sous-région ya ñëw si nañu Sénégal ils sont capables de tout provoqué ay accident taal ay këri jaamur ak lu ne lañu capable moo tax bu ngeen xamoon ñun li ñuy dunde di ñu gën a yërëm soxna si xam na ci dara waaw dañ ma lëjal ci kër gi façon bu nga xam ne loolu kenn bësu ko gis te façon bu ne lañuy dikke provoquer la rek pour provoquer la waaw góor dina ñëw jigéen dina ñëw xale yu tuuti yi sax léeg ñu ñëw waaw dangay ngay jaaxle ci àdduna waaw mu tax keroog bi góor giy nettali façon yi ñuy xeexeek yow dama mu ay rey jàpp ma ndax li muy nettali yépp mu ngi direeku sama kaw waaw ma jàppante ak ñoom waaw te kat lay jaaxal mooy ñi nekk ak yow ci néeg bi duñ leen gis waaw yaa koy nettali rekk ñu naan la kañ kañ te fekk ñu ngi fi woon waaw waaye ñu mën a tooñ a ngi ci nag waaw parce que kenn def leen yarul te amuñu kilifa waaw waaye loo ci man yàlla leen may waaw ñuy dugg sa néeg te duñu fëgg jékki-jékki rek taxaw ci sa kanam te du ñu jaar ci bunt nu leen neexee nag lañuy ñëwee li leen ñu civilisé solo ba cekk bu dee góor noonu bu dee jigéen noonu waaye léeg ñu ñëw ak seen xaalu bopp dangay waru jàdduna waaw seen yoon waaw bu ko defee nag provocation yi ci accident yeeg yeneen ak yeneen mu ngi bare waaye fekk ne itam ah foog nga xam foo ciy jaar ndax it du mbir mu nga xam ni n'importe qui mën na ci intervenir dafa am loo xam ne budul sa cër yàlla seddu la ko da ngay tey te yéen a toog fii ci champ de course suñu cheikh wax leen nii leen dafa am bés muy waxtaan ak iblis moom Serigne Cheikh Tidiane moo leen ko wax fii ci champ de course mu ni may waxtaan ak iblis ba ci yàgg mu ni ma man dafa am sarax bu ma bëggoon ñu defal ma ko ndax mën nga ma boolee ku ma ko defal iblis nee na ma ne ko waaw waaw mën naa la booleeg ku la ko defal nee na ma ne ko am na sama benn njaboot bu ñu wax Alaaji Sidi Njaay ca pikin mën naa ko wax mu defal la sarax bi te nee na bi muy ñëw ci man loxo sax yoru ko nee na ma woo Alaaji Sidi Njaay ba mu ñëw ma ne ma boole ko ak moom pour wax la am na ñu nga xam ne yi inquiété nit ñi inquiété leen waaw ndax romb nañ yooyu yëpp waaw bu ko defee rek kon am na koo xam ne nit ñi duñ ko gaaw a xam mukk ndax de façon bi mu leen réeree dafa ëpp keroog Ibrahim Mbay rek mu ngoy netteel yi ni ci sëriñ kan bu alaaji Ousmane kan la ko déggee nee sëriñ kan ni ko gis nga sëriñ Cheikh ak sëriñ Moustapha nit ñi duñu gaaw a xam seen seen cër ndax seen civilisé gu ëpp waaw ndax bu civilisé ba mu ëpp rek nit ñi dañuy am yu ñuy waaw ah, ku nekk fa mu toll ak na mu mën a déggee ki dul gis lu dul li ci kanam li ci kanam rekk lay gis mais ki yàlla dimbale mu mën gis la ca gannaaw fa kachafna anka xitaaka fa basaruka al yawma ñooñu it ak seen cër ko defee kon nag eh tisbaar ji dugg na waxtaan yi du jeex waaye occasion yi du jeex ma ngi am benn mbokk keroog ñu naan ma géej nga def gàmmu ca yeen mu ni ma te bu ñu sañoon nag wax dëgg yàlla nga saraxaat ñu pour may ñu benn guddi ca yeen ma ni ko incha allah bu ko yàlla dogalee mu war nekk danañ ko def incha allah ñiy ñaan yu mel noonu kenn xamul nu mu toll